asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziar dikkaat ak yéen ci ni ma leen tàmm di leen ko defal saa su ne fii nag lay amee VA TV vision avenir donc nag fi ma taxaw ni jarul laajte maa ngi taxaw fi nga xamante ne fi la mason yi di liggéeyee ñu nekk ay jàmbaar fëkk dënn liggéeykat ndax bu ñu moolul bâtiment du taxaw bu mason taxawul kër du taxaw kon war nañ leen amal njukkal gàcce ngaalaama leen ma fas yéene dugg ci seen biir waxtaan ak ñoom xool seeni i jafe-jafe xool li ñuy dund xool tamit seen liggéey métti gi mu metti ndax ñu bëri mën a xam ñoom lan la ñuy daj ci liggéeyu suuf ndax suuf dafa metti damay daal di ànd ak sama cadreur bu ñaaw bi macha allah ak ki nga xamante ne mooy Ahmada ñu gën ko xam ci Seydina Mohamed salaayu saram baram njañi kenn du moom damay daal di dugg ci biir xool ñoom seen i jafe-jafe ñu daal di dem comme ni ma kau ko waxe bi may dugg ci di nuyo ci maçon yi nak la ñewon doxantu tay ndax seeni jafé jafe-jafe askan wi xam ko ndax li ñi daj metti na ci naaj bi lañuy yendu ah, di liggéey di mool tax ku ne xam ne mool bu taxawul kër du taxaw ma daal di taxaw ak sama benn chamine fas yéene cee waxtaan ak mom momit mu wax jafe-jafe yi nga xamantene mom lay dund fi ci biir place am salam salaam wa rahmatulah. salam rahmatullahi ta'ala ya ci jamm baax baax. ak sante bi naka Dramé. Dramé nan. Elas Hadj elas El elas Dramé El Hadj Dramé ñu fekk la fii sa place ngay liggéey nga ne yëngu ci wàllu mool mhm. bëggoon nañu xam yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel fii ngeen xamante ne moom ngeen di liggéeyee. xam nga ñun ay étranger lañu. dañoo jege Casamance yi ñëw fii wuti liggéey. Mhm. maanaam daal ñu wuti liggéey ba sonn daal. ñi nga xamante ni deful lii balaa ñu am liggéey mu dee métti te toogaay bi moom amul njëriñ boo toogee nii nga ne nga naan yàlla baax na yàlla baax na mooy loolu daal. moo tax ñu jël suñu peel yi ànd ak dem di sa di wuti liggéey ci chantier yi di daan suñu doolee daal mais macha allah sàccewuñu fenuñu ñu ñu ngi daan suñu doole yàlla lu ñu may rek lu ñu ñu yóbbu loolu kër ga ñu dund ak suñu njaboot yi loolu. Ah, da ngeen di xëy yor seen i peel wër ci chantier yi <coughs> bu ngeen gisee ku ngeen mën a moolal ngeen waxaaleeg moom. ngeen ngeen commencé di ko moolal. waaw noonu la ñuy def daal parce que bëgguñu bëgguñu sàcce daal ñu fen. moo tax léegi comme mu dangaa yor jaboot boo xayee nii di toog nii mooy lool moo tax ñu jël suñu pay li lu mu lu mu metti métti métti moom bu ñu xayee moom bu ñu ko gisee daal il faut ñu def ko rek parce que moo gën moo ñu gënal daal parce que amuñu beneen liggéey su du woon lii waaw. Euh, liggéey bi nekk lu metti lool muy móol si naaj bi ngeen di yendu mu nekk euh, liggéey boo xam ne daal ku yëbu xam ne liggéey bu metti la parce que dañ leen ni fekk ngeen nekk si naaj bi. waaw métti na lool lool lool parce que naaj yi lañ yendu yenn saa bu ñu ndekkee nii du ñu añ xanaa bu ñibbee kër yenn saa yi dañuy xëy loolu sax am amuñu ndekki sax ñu góorgóor noonu liggéey ba ñu wàcc rek ñu dem añ benn yoon waaw kontaan nañ ci yow kàddu yi rafet na torop voilà ba tey bàyyeeguma leen maa ngi fekk ko xamante ne mi ngi mool bëgg naa xam tamit lii ñuy moolee naka la tudd ak lan parce que ñoom ñoo ñu mën a leeral salaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulah ziar la maa ngi delloo ziar baax tur bi ak sant bi man Ablaye Sani Ablaye Sani waaw joolaa nga xana non soosé ah soosé oui ba di nga soosal non non du ma la soosal de sosal <laughs> du soosal kenn du ma ya <laughs> ñu fekk la fii ngay liggéey lii lañ bëggoon a xam nu mu tudd li nga ni moolee nii ah 12 ay kees douze la. kees kees douze. douze douze la douze la là. Hmm. douze là la douze là tout hmm. hmm. ah, am façon wala même mool bi la. non non amna ay façon waaw amna ay trois waaw. Ah, nañ xam ah, qualité yi. waaw ay quinze. Amna ay 15. Amna ay douze. Amna loolu yëpp am bokk na si. waaw qualité yooyu bokkul ci même bâtiment lay dem wala. waaw. bu nekk ak bâtiment la. bu nekkee bâtiment la waaw. jafe-jafe yan ngeen di dund fii ngeen xamante ne moom ngeen di liggéey mu nekk liggéey bu metti waaw liggéey bu metti kay mooy loolu ñun suñu parents yi suñu maamu yi yëpp ay liggéey bu metti lañu xamante waa léegi ñoon tamit bëgg ñu ay lakk jàmbur quoi pour yow nga lakk. ma ma dem ma sàcc la ma yóbbu sama gàlle ma lekk ko yooyu yow ma man am man may sonn quoi moo tax man ma bañ lool damay liggéey fii pour ma am lu may dugal sama sama jaboot quoi. oui ñàkk jariñu rek. <laughs> voilà. Euh, bëggoon nañ xam tamit euh, ciment beeg yooyu noonu ngeen di liggéey ban ciment moo gën a nekk qualité. ah ciment am na dangu am na sec ciment waaw. mais c'est suma instant yi mooy mooy mooy kii mais fu ñooñ fu ñuy door ne kooku ay ciment dangu la. ciment dangu la. waaw moom ngeen di moolee nii. moo la ñuy moolee nii. moo gën a baax ci ciment bi. waaw. Ah. wax sa mbokk maçon yi nga xamante ne ñu ngi daan seen doole coono giñ ciy dajak yooyu ban message nga leen di ah ñoom sama mbokki maçon yi. kanaa dañu jàppante ñu góorgóor la ñu jàppante leen. waaw pour kenn ñu bàyyi morom quoi. pour que aduna mooy lool. tey nii boo amee boo amee beneen liggéey boo xamante ne moo tane maçon. da ngay bàyyi maçon nga dem boo boo fekkee yoroo liggéey boo xamante ne doo mënoo liggéey maçon nga war a nekk liggéey si maçon rek nga bañee sàcc jàmbur rek waaw. kon yéen journée ngeen di liggéey chaque jour. waaw ñun journée ngeen di liggéey chaque jour. waaw mais a ngi ci sant yàlla bu baax. ah alhamdulilah macha allah. yal na yàlla yokk yokk liggéey barkeel ko. merci beaucoup papa ziar nañ la. ziar naa la. mbaa yaa si jàmm. maa si jàmm. tur bi ak sant bi naka la. Malick Diouf de la. Malick Diouf. papa <laughs> yow. papa ñu ñëw fekk la fii sa bërëbu liggéeykaay ndax <laughs> xam naa ne yàgg nga ci lool ci wàllum liggéey ciment bëggoon nañ ñu am ci ay leeral yu ndaw rek. man nee dama doon liggéey ciment léegi liggéeyatuma ciment géej naa liggéey ciment. dama ñëw xëy na liggéeyuma rek ma ñëw toog fii. Mm-hmm. da kii. loolu rek moo ma fi indi fii nu caagin pour may surveiller liggéey mbaa may ah ku liggéeyul noo koy surveiller man kay lu ma la wax fii kon mm-hmm. damay wax rek xamatu ma saako si ma nañ doon kii milaasa xam nga ñaata doos la war a génne bu ma la waxee itam nii lay defit damay juum. Euh, ba jamono yi nga doon liggéey tonu ciment ñaata la doon jaar. man fàtte naa ko de. ñoom it ci liggéey bi lañu bokk ñooy yor sareet yi di yóbbu birig yi nga xamante ne bu leen ko nit ki fayee ñu mën ko yóbbu fi nga xamante foofu lañ ko soxla ma toog ak moom nag fas yéene waxtaan ak moom mu leeralal ñu tuuti rek ziar nañ la. ziaral naa la. ba yaa ngi si jàmm. maa ngi jàmm bu baax maa ngi jàmm bu baax. ñu fekk la fii ngay liggéey papa ñaata at yaa ngi nii di ko liggéey. yàgg na de eh, am naa fi ay fukki at ak nangam de. fukki at ak nangam ba tey yaa ngi koy liggéey. na loolu sax waaw yan jafe-jafe nga siy jànkonteel. ah jafe-jafe rek boo gisee client nga yóbbu waaw nga wax ak moom nga yóbbul ko kii ay briques ak suuf ciment. ziar naa la sëñ bi. delloo naa la ziar bi. baa yaa ngi si jàmm. maa ngi sant bu wér. Ah, ñu ñëw fekk la fii ngay liggéey ah, ci li nga xamante ne mooy maçon da ngay mool wala ci lan nga si lan moo fi sa liggéey fii. non du ma mool. gars yi mool après mool bi xam nga. sama booy moo nekk fii dama koy jàppale si job bi ñun ñooy ranger job bi ñooy def xam nga yii nii ngay gis nii yëpp xam nga loolu mooy suñu liggéey fii quoi. maanaam bu moo li woowee yéen a koy ranger tegle ko daal. merci noonu la demee. mu nekk liggéey bu métti ak mool ni mu diisee. waaw liggéeyu suuf moom yëpp a diis quoi amul benn bu mu bàyyi suuf boo xësee ba xam nga fii la commencé gis nga la le da ngay boole suuf ciment. ak xam nga béton mélanger ko quoi mu jaxaso nga après nga def ko brick brick bi moy don li mol day dem ba wow quoi nga yëkkati ko dem jaay ko ki nga koy jaay da kay dem tabaxee këram bëggoon nañu xam ñaata tonne ciment ngeen ni mol par jour non des fois on des fois duñ yegg sa une tonne des fois ay 10 sac des fois ay xam nga ça dépend rek des fois ñu def ay 8 sac des fois bon Nous def ay un sacs ça dépend 12 sacs mais une tonne pour moi ko je suis molé après boko molé day quoi. molé ñaata jours lay tok trois. jours maximum trois jours. Hmm. lu mu bari bari trois jours quoi. bon yéen euh, bu ngeen moolee ba pare da ngeen di am ay commande wala yéen da ngeen di mool di jaay wala yéen ci ñaar yëpp ngeen di yëngu. sa day mool des fois di jaay des fois nit woo ko téléphone ne diw dama soxla par exemple cinq cent briques wala ou cent briques pour bâtiment am quoi préparer xam nga këram mu ngi fay tabax mu ngi fay liggéey maçon yaa ngi liggéey mais day commander fii des fois cinq cent briques wala six cent briques. bon qualité brique bu nga xamné mom la maçon bi di wax né mom la soxla mu commander ko fi sa waay moolal ko après saret bi comme sa way gi nga don waxtanal légui matar wala des fois amna ben benn ko gaayan bu dëkk fi talibé cheikh ñu ne ko kay jël yobbu ko quoi fi dama fi gis ay façon brique yee wow né ak yi ñuy mol ni bokul lan moy waral différence différence bi moy yi dafa toy yi légui lañ ko défar quoi lële defoon nañ ko depuis bërka démb après trois jours après quoi déjà taxawal nañ ko comme lii la paa bi doon expliqué paa bi lii mooy liggéeyam moo si jiitu ñi si nekk nii ñëpp lii mu la expliqué nii si brique bi tey brique bi nii yëkkati nañ ko wow na léegi dañ koy xoos bàyyi ko noonu naaj bi wowal ko fekk roose nañ ko après jour biñ ko móol comme tey lañ ko móol comme xam nga ñu ngi koy móol tey legi suba bo ñëwee da ngay kepp yëm ndox ba mu toy bàyyi kon ndox boobu dugg ci mom mu wow bu suba da nga taxawal ga après naaj bi japp ko ak ah ngalaw bi mu wow mom la ñuy riimee ni mo nekk yii yëpp ci comprend waaw léegi saako ciment euh, instant yi mi ngi ci ñaata prix ak legi ni mu dafa gëna cher wala dafa gëna waaj instant bi ni mu ngi ci 3300 3300 lay benn saako bi di jar. waaw benn saako. léegi boo bëggee une tonne une tonne ça fait vingt sacs une tonne ça fait vingt sacs. vingt yi boo ko totalisé si trois mille trois cent da lay jox soixante di leen tàggatoo nag tàggatoo bu dul tàggatoo mi ngi noonu ci mason yi nag laa duggoon ci seen i biir dégg nañ seen i jafe-jafe leeral nañ lépp loo xamante ne rek ñu ngi koy daj ci seen bërëbu liggéeyukaay ndax nee nañ tamit nit ki ci li muy liggéey ci la mën a ñàq jariñu wax ay kàddu yoo xamante ne am na solo te ku ko dégg di nga leen bàyyi xel bu baax a baax gàcce ngaalaama ñi nga xamante ne ñoo nekk ñi nga xamante ne ñooy tabax bâtiment yi gàcce ngaalaama ñi nga xamante tamit ñooy jaay li nga xamante ne mooy ciment gàcce ngaalaama ci li nga xamante ne ñoom it ñooy jaay li nga xamante ne mooy suuf kon di leen jaajëfal bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal jàmm ju sax dàkk yéen ñi nga xamante ne yéen ñuy seetaan di safoo li nga xamante ne ñu ngi leen koy indil fii ci VA TV di gërëm Ahmada sama xaritu xol sama doom sama lépp nee naa bu taxawee macha allah kenn du yow di gërëm ki nga xamante ne tamit mooy càndum fàllu aadama suñu cadreur yi ñaawul yooyu macha allah taxaw ci liggéey ba lépp mën a yemb di gërëm waa VA TV di leen wax caaw caaw ci beneen numéro fii ci VA TV merci beaucoup.